bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabiilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashrafi alanbiyai walmursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmain allahumma axrijna min zulumaati alwahmi wa akrimna bi nuuril fahmi waftax calayna bi maxrifatil cilmi waxassin axlaaqana bilxilmi wa saxxil lana abwaaba fadlika wansur calayna xazaa'ina raxmatika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 yal na boole ñu defal njëggal yal na ñu defal sutura waaye ndokkeelaat leen it ci bis bu tedd bii nga xamante ne mooy bisu àjjuma nekk sangub ay bisi yiw wi nga xam ne moom la ci borom bi dëxëñ yéene ko xeetu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba jox leen ko yal na ñu daje ak moom moo tax ñu war a bari lool luñ ciy def ci ay jaamu yiñ doon def ci semaine bi yëpp baax na waaye nag ci bis bii moom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 digganteem ba ba àjjuma ja di dellu si yàlla ci borom bi subxanahu wa taala defal ngërëm nangul mboolem yi nga xamante ne digge na ko ci booleñ ci ñi nga xam ne dinañ ci góorgóorlu ba man koo taxawee tey suñu waxtaanu àjjuma dañuy waxtaanee ci li ñuy wax barke. barke léeg ak nan la ñuy def ba am ko barke olof da koy wax waaye boo ko doon tekki mën ngaa wax ne xéewal xéewal ndax albaraka moom baat bi daa mel ne ci làkku yaaram la nekk waaye bépp jullit day war ci moom mu di ko sàkku moo tax sax ngay wax nit baarakallah loolu mooy yal na la yàlla barkeel am ñuy wax tabaarakallah yal na la yàlla barkeel waaw olof nag comme moom léeg baat bu mu yàgg wax yàqu ko léeg mu ne taarkal la waaye loolu la woon tabaarakallah mooy yal na yàlla barkeel yal na yàlla barkeel barke mooy loo xam ne boo ko timoon muy lu mel ne lu tuuti ci ay bët waaye mbir dana nekk ca wet ga ëpp ko fuuf te lii lim man du ko man loolu mooy dund gu barkeel dund gi mën naa mel ne lu gàtt waaye dafiy bàyyi lu bari lu ñu man di waxtaane ba duna di tukki bu dee alal mën naa mel ne alal ju néew waaye day barkeel lool boroom man cee def lu ne waaw moo tax olof daan wax naan bari le barkeel le moo ko gën booy ñaan borom bi nag nga ñaan ko mu booleel la ñaar ndax man na ko ndax man na ko moo tax nit ki day bëgg borom bi defal ko barke ci ab liggéeyam defal ko barke ci ab xam-xamam defal ko barke ci ak dundam defal ko barke ci ay doomam defal ko barke ci wërsëgam yii yépp day mel ne bu ci barke duggut dundu nit ki dund gu ñàkk solo lay doon ndax dund gu ñàkk barke lay doon xam-xam bu ànd ak barkeel xam-xam bu am solo lay doon jëf joo xam ne barke da caa nekk jëf ju am solo lay nekk dund gu am barke it dund gu am solo lay nekk waaye njaboot gu barkeel it njaboot gu am solo am njariñ lay bokk nga xam ne barke boo doon wax mu mel ne day mel ne ndolleen wala day mel ne yiwu yiwu baree baree bari moo ci nekk borom bi subxanahu wa taala moo koy maye. moo koy maye moo koy may julit bi mooy barkeelal nit ki mooy barkeelal nit ki mu mel ne day am lu muy yokk loo xam ne du doon yokk gooy làmb ko daj waaye yokk doon goo xam ne yokku maanaa lay doon yokk goo xamante ne yokku maanaa lay doon moo tax bu ñuy xamle barke mën nga ci waxtaan lu yàgg-yàgg te loo ko misaale rek mu doon misaal mu jege moo xam ne danañ la wax ne ah diw de borom barke la waaw léeg-léeg nag mu doon mbooloo mu bari ñu tudde ko barke léeg-léeg mu doon turu siiw ñu tudde ko barke ala kulli xaal njariñ yu rëy yañ cey seen moo tax ñuy wax ne loola barkeel na barkeel na nga xam ne moo tax nit daan dem ci kuñ jàpp ne am na barke mu jox ko la muy la muy laaj daan na am moo taxoon ab yar di am moo tax yarluwaan daan am gis koo xam ne wax dëgg yàlla ni mu yaroo yéem na la li nga xam yow te njort ko ci barke li nga ci séen ci moom yéem na la nga jox ko kum taxool ndax mu wàll ko ndax mu wàll ko ndax waxoon naa ne taxoo taxoo dafa am solo taxoo dafa am solo ndox mi ngay jëfandikoo cosaan ndox moom du tàng du lakke waaye nag taxoogum taxoog lu tàng jër tey lakke muy sawara moo tax ndox day dem ba ndox mi ci boppam day mel ne sawara li sawara man lépp da koy man moo tax olof yi daan wax ne bu la baax tëxee rek ànd la ku baax boo tax xook moom léegi tey mu jariñ la waaye di ànd ku nit ba noppite te bëggoo mel ne ñoom loolu moom xawuta mën a nekk xaw xawtu di ko nga ne loolu xawuta mën a nekk moo tax barke am na solo lool mbokk yi barke bu ma ko waxee noonu ba mel ne lu ko jéem a le buñ demee ci li nga xam ne moo koy maye li tax nit ki am ko ay mbir la ay mbir yu bari la ma jiital ci alquranul wax ji nga xam ne moo féete kaw jépp wax borom bi subhaanahu wa nee na ragal yàlla ragal yàlla ak wàkkiirlu ci moom day taxa am barke waaw ragal yàlla ak ci moom day taxa am barke walaw anna ahlal qura amanu wa taqaw la fataxnaa alayhim barakatin min alsamai wal walakin kadabu fa aqadnaahum bima kaanu yaksibuun borom bi nee na waa dëkk bi buñ gëmoon te ragal ma waaw maanaam ñi nga xam ne dañoo bëgg barke buñ bëggoon réew mi doon réew moo xam ne barke nga firee ko développement développement nee na euh, fii gëm ma ak ragal ma nga xam ne mooy ragal yàlla ak wóolu ko ragal yàlla ak xëy ci lim santaane waaw gëm yàlla ba noppi nangoo jëf ay ndigalam nee na ma ubbil leen ma ubbil leen barakaat yi nga xamante ne moo nekk ci asamaan ak suuf yépp fii borom bi xéewal yi bàyyi ko asamaan la tudde barke kon taw bi man nga koo boole ci barke taw ki xéewali yàlla yi la bokk moo tax bay bun nga organiser wu ndax moom dana taw borom bi dana taw bu fekkee sam néeg day senn bu fekkee sam néeg day senn xam naa léeg-léeg nit yeewu rek gis suuf si tooy mu ne ah kon da taw démb war ngaa sant yàlla am na koo xam ne nii ba mu xiinee rek tàmbalee wicci wiccal la fanaanee karkaral ndox mi te bala ngaa xam ne looloo metti nga fanaan ci néeg buy senn nga fanaan ci néeg buy senn muy taw guddi day mel ne ko wet goo banku rek fa la seen senn ba di tuxu si am na ñoo xam ne ay paan lañ teg ci seen kawlal yàlla xam na ko waaw ñoo xam ne ay siwo lañ ca teg am ñoo xam ne ña ngay déplacé lal bi ci guddi geek àndale boo xëyee suba yéeg waaw di daax ak a sakk ak a muur ak a baase ak a ak a baase waaye yàlla nee na dinaa taw te jamono ji muy taw xam na ne am na koo xam ne taw bee yàqi nelawam waaye am na koo xam ne taw bee defari nelawam ndax moom bi mu tàmbalee taw la naan daa féex waaw péex mi moom kay climat bi daa sensé nga di ñaan ah climat bi kay moom bañoon cee def dara rek a baax nga xam ne moom féexaay wi moom nelaw rek a ne ci xel mi am koo xam ne moom day fanaanee doñ doñ ba bët set waaye borom bi dana taw ala xaal am koo xam ne day ŋëcc ndax fam dëkk day taa fam dëkk day taa bu wàccee ay tànk mu ngi ci biir ndox mi waaye borom bi moom day taw ndax ala kulli taw bi da dut pour yow dong da dut pour yow dong waaye nag bu fekkee gëm yàlla am na aku góorgóorlu borom bi nee na ma ubbil leen xéewal yi asamaan yi ak suuf kon léeg nit ne damaa damaa tëju léeg nit ne sama wërsëg dafa mel ne dafa gàtt léeg sax nit nela lu ma lu ma yaakaar lu ma ci jot wala lu ma jot rek mu gaaw dem mu gaaw dem la ci jiitu mooy e, ci wàllu wërsëg delluwaat ci borom bi sori ak mooy yàlla sori ak mooy yàlla mooy mooy mu sori bokkaale waaw sori yenn bàkkaar yi bu ko defee amanu day dugg wa taqaw it daal di dugg amanu muy ngëm yàlla wa taxaw ak ragal ko ak ragal ko Oustaz Alioune Sall moo koy firee am jom te boo ko dugaloon fii da ci yem képp ndax da ngay gis ne gëm yàlla ba noppi am jomi nangoo fàggu am jomi nangoo sori lim la tere borom bi nee na la fatax naa alayhim barakaati min asamaai wal ard kon pétrole ak gaz ak eh, koom-koom yi ne ci suuf yëpp borom bi di ko jox nit day dugg ci wal ard ji waaye lii bàyyi koo ci asamaan ci naaj wi ak lañ ci mën a liggéey ngelaw leeg liñ ci mën a liggéey taw bi ak liñ ci mën a liggéey loolu yëpp bu boobaa day nekk ay wërsëg day nekk ay wërsëg waaye daa bokk ci li maye barke ci dégginu ji mooy gëm yàlla ak ragal ko waaye yàlla nee na defuñu loolu defuñu loolu dañ maa weddi dañ maa woon ginnaaw walakin kadabu moo tax fa axadnaahum bi ma kaanu yaksibun waaw ma jàppe leen la ñu def ma jàppe leen la ñu def léeg aw nit di dund loo xamante ne da ngay jàpp ne yàlla nee na yéen a ko def li ngeen ni ngeen mel laa leen jàppe ni ngeen mel noonu laa leen jàppee waaye bu ngeen góorgóorlu woon du ngeen mel ni ngeen mel waaye fa aqabnaahum bimaa kaanu yaksibuun kon da ngay gis ci aaya ju njëkk ji ma jàng ci suratul araf borom bi subxanahu mi ngi wone ne ragal yàlla ak bàyyee ko sa bopp daa bokk ci li nga xam ne day maye barki amanu wa taqaw amanu ngay jàng ci aaya ji te mooy ragal yàlla gi Eh, waaye bàyyee gi sa bopp bàyyee gi sa bopp aaye jeneen a ngi nii ju ne ci suuratu talaaq yoo xam ne borom bi day wax ne wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuquhu min xaytu laa yaxtasibu wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbu inna allaha baaliqu amrihi xad ja'ala allahu li kulli shay'in xadra borom bi nee na ku ko ragal mu ubbil la ay bunt waaw ku ko ragal mu ubbil la ay buntu yàlla nee na ku ma bàyyee sa bopp duma la seetaan ku ma bàyyee sa bopp mu wutal la solution maxraj waaw mu wutal la ay génnuwaay ay ay ay génnuwaay xat-xat boo mën di dugg yàlla nee na boo ma bàyyee sa bopp te muy dëgg ci yow mu wutal la solution bu kiris bu mu mën a doon rek kiris bu mu mën doon borom bi nee na boo ma boolee ci yëf waaw te da cee war a bokk nag te ragalit moom nga koy def nee na du yem ci wutal la ay solution waaye dama lay defal xéewal mooy wa yarzuquhu min xaytu laa yaxtasib waaw ma wërsëgale la loo xam ne sax foogoo ko woon ma defal leen ay surprise waaw yoo xamante ne foogoo ko woon léeg-léeg ragal yàlla ak wakkilu ci moom yàlla nee na dama lay defal loo foogut waaw loo ndax fi mu ne am na loo xam ne moom foog nga ko mooy wala sax léeg nga am ci yaqin da ngay xam ne dund ba àgg ca moo tee nga jot ca mën naa am sa salaire bi nga xam ne signé nga ko ñi la koy fay ngay liggéey waaye wërsëg yi lay dikkal nag te léeg nit di eh, dunde loo xam ne da koy wóor ne lii moom bu yemoon ci salaire bu kese kese du ci génn wala du ak njàmbaaram waaye ndimbalul yàllaa ci nekk loolu mooy barke mbokk yi li ñu waxtaanee nii loolu mooy barke waaw nga nekk nit ngeen bokk di liggéey yéenay xëy seen yeneen yéenay wàccandoo léeg-léeg yéen a tolloo sax lu ngeen di jot bu weer wi dee wala nga ëppale ko waaye nag nga gis nag mu man leneen loo mënut nga xam ne mën na lay dimbali waaw mën ngaa gis muy dimbulee nga ñëw fekk mu taxawal ay yëf yoo xam ne mënoo ko gis mu yaatal loo xam ne da ngay posé ay question lii kii fu mu ko jëlee kii fu mu ko jëlee waxuma nag eh, ku tibbule ñëpp bokk dem defe ko noona loola moom toskare la waaye du barke waaw du barke loolu moom lu baaxul la loo xamante ne ka koy lekk sawara lay lekk waaw innama yakuluuna fi butunihim naara wa sa yaslawna saira yal nañ ci yàlla musal la muy lekk sawara la waaye ki nga xam ne nag moom dafa am barke ta li ko may mooy bàyyee boppam boroomam wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbu yàlla nee na ku ma bàyyee sa bopp ma doy la sëkk ma doy la sëkk waaw man manqué wu ma yàlla nee na moom manqué wut ba nga xam ne nit da koy bàyyee boppam ba noppi di ñee keneen xanaa nit sax boo ñëwee ne ko wax di yàlla gars yi de nee nañ ñànga waaye man daal doyloo naa la toog danaan la bu soobee yàlla da nga fexe ba euh, gaa yi moom dooleen leen ñee doo ñee am na ñoo xam ne sax boo leen féetewoo ñu féetewoo la te loolu mooy ak ngore boo leen féetewoo ñu féetewoo la borom bi nee na nag moom loolu ci moom la yam wa man yatawakkal ala allahi fa xasbu moo tax wàkkiilu ci yàlla wàkkiilu ci yàlla day maye day maye day maye barke day maye barke day jàppandilal ay mbir day jàppandilal ay mbir bokkaale nag day joxe ab coona ba noppi jafee la ay mbir am na koo xam ne sax li ko yàlla wërsëgale mu man cee am barke moom lay far wutale yàlla ay ay wujj te yàlla noppi na inna allaha baaliqu amrihi xad jaala allahu li kulli cheyin xadra borom bi nee na mooy mot li mbir yi te lenn lu ne da ko wutal ab app lenn lu ne da ko wutal ab ap li ngay wut te di ko yàkkamti loo ko yàkkamti yàkkamti ta app bi jotut doo ci jot loo ko yàkkamti yàkkamti te app bi jotut doo ci jot doo ci jot léeg-léeg sax nit yàkkamti ba jot ci loo xamante ne day mel ne waru ci woon a jot nam cay jote jotin wadu rafet jotin wadu rafet waaye nag bu ko bàyyee borom bi te sabablu ko ni mu ko war a sababloo da ciy jot jotin wu rafet waaw te leen lu ne nag yàlla dogal na ko ba noppi am na koo xam ne borom bi daa dogal ci moom ne moom du am kër waaw li ñu tudde kër da am ci àdduna waaw léegi nag xamoo ko waaye na nga cay xëyee ka gont ci farata waaye boo ñaawalee saw doxee nit mën naa am doo ko am wala doo ko jariñoo mën naa am doo ko am wala doo ko jariñoo léeg nga koo xam ne kër ga na mu yéemee ba ñëpp di ko waxtaanee waaye boo moytuwul naru caa dëkk ñetti at yu mat yàlla xam na ko yàlla xam na ko waaw lu nga daj ko ca lu ne boo demee leb nga wut nga ko ci anam goo xamante ne gënut woon waaye nag ndeysaan def ko muy jom aku sas ndekete foofa du sa kër foofu du sa kër du du gi nga war a dëkkee du gi nga war a dëkkee léeg borom bi moo koy dogale noonu rek wërsëgu nit ki loolu bokk ci waaye àpp ba jot ndax li kulli shay'in xadra len lu ne wutal na ko àpp bi mu war a amee am na koo xam ne fi mu ne wut liggéey fu ne déposé na fa ñaan lu jëna lu ne def na ko amul liggéey waaye kero bis ba mu naree am liggéey ca jamono yooyu defut defut sax ay effort yu bari defut sax ay effort yu bari fa mu njëkk a dem rek lañ ko woo mu def entretien tàmbalee xëy moo tax lu jotut it mënoo fexe ba mu jot bu sëy jotut daa jotagut dogal bi daa jotagut da nga koy ñaan borom bi subhaanahu wa taala te yi koy maye nga nekk ci waaw yi koy maye nga nekk ci te mooy wàññi xeebaate wàññi xeebaate gën a wàccee sa bopp tuuti léeg ni nit di wut bak te bag bi jotut ci moom ren ñiy wut ñëpp dàquñ laa jàng waaye yàlla dugalut sak nga bokk ci ñi koy am ren doo ko am mënoo ci dara loolu mooy wakkilu ci yàlla waaye mooy doyloo borom bi subhaanahu wa taala te loolu mooy ragal ko wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxraja waaye wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbu ñaari waman a ngi noonu ci aaya ja ci suuratu talaaq waaw borom bi nee na ku ma ragal ma ubbil ay buntu wërsëg wu jox woo xam ne sax dama la koy joxe foo ko foogewul woon ku wàkkilu ci man ma doy la ndax mbir mu ne maa koy dogal maa koy waaye borom bi subxanahu wa taala len lu ne da wutal ab app boo xam ne bu ca àggee rek ca lay am xadis boo xam ne day wax ci wàkkiilu te lëkkaloo ak wërsëg Omar ibnul Xattaab radiallahu anhu moo ko dégg ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam muy wax naan law annakum tatawakkaluuna ala allahi xaqa tawakkulihi la rasaqakum kama yarsuqu tayru taxdu ximaafa wa taraxu batana nee na yonent bi alayhi salaam wasalaam dégg naa muy wax naan bu ngeen wàkkilu woon ci yàlla bu ngeen bàyyee woon seen bopp seen borom subhaanahu wa taala wàkkilu ci moom ni nga xam ne noonu la picc yi wàkkiloo ci moom waaw ni nga xam ne noonu la picc yi wàkkiloo ci moom picc daa ak wàkkilu gum wàkkilu ci yàlla goo xam ne borom bi da koo binde noonu waaw borom bi da koo binde noonu wàkkilu gu mënta ñàkk la ndax picc amuti poos ba man caa denc luy xaar suba hmm. yow nag yàlla dalaa bindal nga mën a ami poos mën a ami kont mën a fàggoo ji waaye li ngay roye ci picc mooy doyloo gim doyloo boroomam ba mën a xëy ba mën a xëy xëy ak euh, gox boo xam ne dara nekku ci waaye bàyyee gim bàpp bàyyee boroomam moo tax bu ngoonee buy ñibbisi ab gagam day fees dell dell dell léeg-léeg akum pepp wala ay gerte wala yam yendoo for di lekk borom bi subhaanahu wa taala moo koy jox fi mu ne picc yaa ngi dund yàllaa leen koy jox waaw eh, gunóor yi bërëngu sax te war a dund sax borom bi dana leen fàggul luñ lekk dana leen fàggul luñ jox leen ko ndax moo nam mu seenu dund yow mi dundu nag te doon nit te sa dund nga góorgóorlu ba dundu gi amal njariñ jaam ñi amal la njariñ yow sama borom bëkki bu nammee nga nekk fi dana la dana la fàggul moo tax gimiñ gu yàlla xar dana ci dugal dara dana ca dugal dara kër kër yi ca loola moom lele sax du doon sa yitte àqan li nekk sa yitte mooy li borom bi farataal ci yow ndax yaa ngi ci wala déet loola nag da caa bokk sabab lu ba dundu waaye da caa bokk sabab lu ba am ngërëmam nee na bu ngeen wàkkiilu woon ci yàlla ni picc yi wàkkiiloo ci moom ma wërsëgale leen comme ni may wërsëgale picc yi nee na picc day xëy suba ak loxoy kese ngoon jot mu gont seeg biir bu fees dell mu jeex borom bi subhanahu wa wakiilu lay joxoñ foofu waaye lëkkale ko ak li nga xam ne mooy barke ma dégge ci lëkkale ko ak li nga xam ne mooy wërsëg ni nga xamante ne dañ koy fàggoo barke ci ragal yàlla ak wóolu ko noonu lañ koy fàggoo it ci saraxe waaw saraxe dana tax am barke dana tax sa alal barkeel dana yokk wërsëg dana yokk wërsëg moo xam saraxe bi nga xamante ne saraxu far force la muy azaka azaka day day laabal alal day laabal alal da koy yokkal boroom da koy yokkal boroom da koy yokkal boroom moom azaka waaw da ciy def barke sarax itam noonu lay yokke wërsëg sarax moom li muy def lu baree baree bari la xam naa dana am ajjuma joo xam ne danaa dikk ci ngëneeli sarax ngëneeli sarax ndax ñu gën koo fonk waaw tam bañ a doon rek biñ la digal boo xëyee saraxel juróom-ñaari mburu saraxel ñeenti sondeel xam naa boo jékki-jékki woon saraxe ko te taqale woo koog loolu ci lay gën waaye sarax moom aw yiwu baree baree ci nekk waaye def ko te yàlla tax nag moom jafe na waaw jafe na moo tax alquranul karim ci liy wane ne sarax day laabal alal ba noppi di ko barkeel te loolu mooy wërsëg ak barke boo demee ci suuratu tawba borom bi day wax naan xub min amwalihim sadaqa sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salaataka sakanun lahum wallahu samiun alim borom bi ne na nga jël na nga jël asaka yi yonent bi la ko wax ne ko asaka bul toog di xaar dong waaye asaka dafa war a am ñoo xam ne ñoo koy jëli wala bokk génne ko far force la rek asaka jooju nga xam ne yaa génne sa alal daa bokk ci lim lay jariñ mooy day laabal sa alal waaw sarax bi nga xam ne danga koo joxe it noonu la lay laabale noonu la lay laabale sarax dana waral njéggalu bàkkaar waaw sarax dana tax am ngërëmul borom bi subhanahu wa taala tiyaaba yi ci nekk yu bare bare baree baree bari la kon tutahhiruhum wa tuzakkihim biha mooy dana la laabal ci ay bakkaar dana la laabal ci jikko yu baaxut yi waaw ci jikko yu baaxut yi loolu mooy tutahhiruhum wa tuzakkihim nag man nga cee dégg ne dana la yokk dana yokku alal ji ba noppi yokku la ay jikko yu baax xiirtal la it nga man cee jëf jëf ju baax ci sa alal ji ba noppi defal la tiyaabay àdduna ak tiyaabay àllaaxira waaw tiyaabay àdduna ak tiyaabay àllaaxira bokk na ci li maye azak lii barke ci eh, may daaneel ndax loolu waxtaan wu gudd la mooy baax jëme ci say ñaari wayjur ak yokk ak mbokk wala jokk ak mbokk ku bëgg barke dangay ngay rafetal jëme ci say waajur day maye barke foo man di wuti barke na nga yëg ne rafetal jëme ci say waajur dara gënu ko gaaw ci may la barke waaw ku la gën a sonn ci way juram moo la ëpp barke waaye nag def te yàlla tax bañ koo booleeg ay ciputu bañ koo boole njàmbat bañ koo booleeg ñaawal jëm ci ñoom waaw am na koo xam ne mën naa mel ne ko am barke ndax am na alal waaye amul soxla ci ay way juram waaw loolu mën na koo njëkke waaye mën na ko bañ a mujje mën na ko bañ a mujje ak yu baree bari yoo xamante ne bari waaye ba mën na faa nekk waaye barke du fa nekk ala kulli xaal bi may def euh, introduction bi maa ngi wax ne daan nga gis koo gis ne am na jikko yu baax nga jokkoo ak moom waaye jokkoo jeeg wuti barkeeg siyaare ji la ca jiitu mooy sàkku barke ci say waajur waaw sàkku ci say waajur ba noppi jokk ak mbokk Anas ibnu Malik radiyallahu anhu nee na yonent bi nee na ku bëgg yàlla yokk wërsëgam wala euh, waaw yokk wërsëgam nay bari lu muy jokk ak mbokk waaw nay góorgóorlu fal yasir rahima nay jokko ak mbokk jokk ak mbokk tiyaaba ju baree ci nekk waaye nag rafetal jëme ci say waajur it tiyaaba yi ci nekk kenn xamul sax tiyaaba jooju noon nan la toll ba noppi barke bu rëy moo ci nekk yal nañ ko yàlla boole defal yal nañ may kenn lu jàmm yal yàlla nangul sunuy jaamu yëpp yal nañ yàlla jéggal sunuy bàkkaar ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax jaajëfal imaam alxaaji Oustaz Alioune Sall ñaan borom bi mu sàmm ko ba mu dellu seeg jàmm defal ko tukki bu barkeel